ak wor yi jaar ak askan wi ci politique day dem ba man sax da ah waaw man Ousmane Sonko mii may jëlee engagement ba du dem ba bis ñëw gaay naan ma waxoon nan la ko na ngeen dalal seen xel leen fen du leen wor du leen sàcc waaw loolu xel bi ci jëkk mooy li tax ma wax waxuma ko ci nelaw gént koor yooyu man ab xonq nopp daf maa woolu ba ma ñëw ma yaakaar damay ñaan loo wala daf may lii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 ma ne ko waa yow man damaa dégg ni ne Ousmane Sonko biir këram dafa am daara mu ne ma mooy yàngal sumay doom